auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaare di jiital ci nuyo bi ak ziyaar bi sëriñ Muntaxa Basiiru Mbàkke di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér di ziyaarit ci bërëb bi ñu nekk sëriñ Afiya Buso mi nga xamante ni mooy jëwriñ ji di jot li nuyoo bi rek sëriñ Abdul Ahad mi nga xamante ni moom lañ toogal Euh, ñëwoon fi nag ci turu mën nañ ni waa Touba France yëpp rek ngir liggéey yi nga xamante ni yàgg nañ koo séq ak ñoom waa France yàgg nañ ko séq ak daayira Muqaddimatul Xidma euh, nga xamante ni euh, depuis 2014 mën naa ni lañ ko tàmbali woon ba ci taw tawféexi sunu borom ñu jotoon fee indi ay autolaveuses yu jógoon yu jëmoon ci jumaa ji Euh, ginnaaw baat ci tawféexi sëriñ bi ñu jotoon fee indi euh, ab morgue ba nga xamante ni quinze places lay def ginnaaw baat ñu amaat féexi indi fi benn camion camion de vidange fosse septique euh, ci 2018 boobaak léegi nag ñu ànd ak ñoom liggéey bi rek ci seenu seeni taxawaay nga xamante ni liggéey boobee moom lañ bàyyiwut rek ba tey jiit Euh, ñu bëggoon a gën a jàppaat ci liggéey bi rek kenn ku ci ne fu murit nekk rek gis na liggéey bi nga xamante ni waa Muxaddamatul Xidma ñi ngi koy def ci weeru koor wi euh, di ci wàllu culturel mooy conférence yi ñuy def nga xamante ni sax kuy dégg yaa ngi koy dégg noonu ak euh, iftaar yi nga xamante ni ñu ngi ko fiy def di dogal ay mbooloo yu baree baree baree baree bari daanaka ku ko gis daal ci image yi di nga gis ni mbooloo mi fii dogoo bari na lool di ay mbokki jullit di ay mbokki taalibe yoo nga xamante ni weeru jot bis bu set fi la ñuy ñëw di fi ndogoo kon nag liggéey boobee lañ amoon yéene ànd kook ñoom rek bi weer wi teroo rek ñu soñ ci mbokk taalibe yi euh, nga xamante ni am nañ luñ ci jot dajale moom lañ doon ñëw tey jii nag di ko jébbale euh, sëriñ Abdoul Ahad ngir mu teg ko ci loxob daayira bi waaye ñu ci profité nag di soññaan mbokk taalibe yi rek di leen wax ni liggéey bi moom tey jii lañ am gën a am yéene ngir laxasaay waat ngir ànd ko ak waa Muxaddamatul Xidma ci mbooleem lépp loo nga xamante ne rek ñi ngi ci ndax seen i taxawaay kenn ku ci ne xam na ko ci ci ci ci ci jumaa ji waaye xam na ko it ci taxawu bàq ya ak bépp liggéey boo nga xamante ni rek sëriñ bi da ko yëkkati teg ko ci seen loxo kon nag bépp mbokk taalibe bu nekk France rek ñu ngi lay woowaat ci liggéey bi ak foo mën a ne rek nga xam ni jumaa ji moom jumaay sëñ tubaa la te képp ku yaakaar sëñ tubaa rek ak foo mën a ne rek am na lu war sa digganteeg jumaa ji am na lu war sa digganteek ñi nga xamante ni ñooy saytu jumaa ji kon nag du ñu guddal lool euh, kàddu yi waaye daal dañuy soññ suñu bopp rek di soññu ñëpp euh, di leen xamal ni liggéey baa ngi fi te lu ci waay def rek dana dana dana yegg si kàddu yi nag dañ koy yëkkati rek ci mbooleem bépp mbokk taalibe bu nekk France rek buñ ci tuddee Serigne Bamba Thiam mi nga xamante ni mooy jëwriñu fédération nationale bi dana yóbbaale mbooleem taalibe yëpp tudd ci it Serigne Bousso bi Bousso mi nga xamante ni mooy imaami kër Serigne Touba Aulnay dana mën a yóbbaale mbooleem mbokk taalibe yi fa nekk yëpp kon nag ñi ngi fàttali ñëpp daal di leen soññ euh, compte yi ñu ngi koy jàllale ci réseaux sociaux yi am na benn lien lit ci tamit bu ñu ubbi loolu yëpp mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi circuler waaye lii nag dafa ni woon rek comme koor gi tàmbali na te it euh, ñu ni ñu tàmbalee ko liggéey bi daal waaw mu toll ci quatre cent mille nga xamante ne moom la ñuy tàmbalee liggéey bi di woyaat nag di di di soññ mbokk taalibe rek leneen luñ ci dajalewaat it incha allah danañ fexe ba mu yegg si waaye it yeneen liggéey it incha allah comme liggéey yooyu ma tuddoon ci njëlbeen gi beneen liggéey it ndax li ci ëpp ni ñuy liggéey mooy lépp loo nga xamante ni waa Muxaddamatul Xidma soxla nañ ko ba ñu xam ko ba mu tàbbi ci sunum nopp rek ñu jéem a fexe liggéey ci jéem cee def ay jéego ba jéem ci ba jëm koo sottal ci ndimbal ak baaxuk sëriñ bi kon nag ñu ngi sant ñëpp di jaajëfal ñëpp di ñaan ñu am daje ceeg ngërëmal sëriñ Touba te yàgg koo taxawul ay ati ati ati ci barke borom Touba jërë ngeen jëf. bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu euh, sëriñ Modou Kara ñu ngi lay delloo nuyoo di nuyu tamit euh, sa mag ji nga àndal di soxna Fat Samb ngeen bokk teew fii ci jumaa ji ngir ànd seeg ñun liggéeyu dayrum xadimatul xidma waaye ni nga ko waxee ci kàddu yi nga bàyyi ko France euh, teewal fii mboolem taalibe yi nekk France suñ ko tuddee sëñ Bamba Thiam mi nga xam ne moo jiite fédération bi ni nga ko waxee léegi ak sëriñ Boussa Boussa imam dana yóbbaale furoox yëpp banqaas yëpp moo xam ñu nekk Paris la wala ñu nekk Grenoble wala ñu nekk Marseille wala dëkk bu ñu a nekk euh, lii sëñ Modou Kara wax nag ginnaaw bu ñu leen nuyoo ci turu sëriñ Afia ak kilifay daayira Muxaddamatul Xidma nga xam ne ñëw ngeen ci waxtu da ngeen ñëw ci waxtu liggéey waaye kon mbooloo ñu leen teer waaye kenn ku nekk dafa am ci lu mu nekk Euh, sëriñ Afia Bousso euh, ñu ngi leen nuyu ci turam xam naa suñ noppee ñu àgg fa ngeen ngeen ngeen siyaare ko waaye di leen nuyu ci turu mboolem daayira bi yëpp di mat a mën a seere nag ñun ci waa France surtout ndaw yi yi nga xam ne mooy yéen ak ñoom sëñ Xaadim ak sëñ Modou Mamoun ak tamit fédération France gépp ndax ñëpp ci jàpp ndax 2012 la ñu àndoon ak sëñ Mamor dem ci dëkk yooyu yëpp ci Europe ci lañ demale Paris ngir doon leeral liggéeyu daayira Muxaddamatul Xidma damay wax ne ñi nga xam ne dañoo am dégg-dégg ak am vision ak it bàyyi xel sëriñ bi ak yi ko gën a ñor euh, man jàpp naa ne ñooy participer ci liggéeyu Muxaddamatul Xidma ndax euh, daaw ñu def benn campagne wax dëgg yàlla sëñ Mamor moo ñu mës a njëkk a génne bitim réew ngir ñu leeral liggéey mais bi ngeen ko déggee. fekk tamit ngeen am ay xalaat yu bari yu ngeen dajale ngir liggéeyal sëriñ bi ci la waa France jóge wax dëgg yàlla ci tàmbali di participer ci matériels yi nga xam ne mu ko woon a ñàkk ko waxee ñaari machines yoo xam ne moog yi ñuy yor ci piyaasa yu mag yi wala aéroport yi wala yooyu nit di ci yéeg di dawal di nettoyer jënd ngeen ci ñaar indi ko mi ngi fi ba léegi. ñu dem ba xam ne margo bi wax dëgg yàlla Italie ñoo ko tabaxoon mu amoon douze trois rek. te xam nga ne Touba ak ni mu toll ak hôpitaux yi fi nekk sax dañ daa am problème fu ñu fu ñu jëfandikoo ci wàll googu ngeen jënd morgue boo xam ne quinze trois la ba léegi ñu ngi koy jëfandikoo ñu dem ba euh, morgue bi aussi fosse bi fosse encastrée lay doon parce que ñu yor wàllu santé dañ ne bu mu doon fosse perdue mu ñu daa coûter lu seer tamit chaque weer wala chaque ñaari weer ay voyages yu bari ngeen jënd auto vidange indi ko teg ko ci loxol Moukhaddamatoul Khidma kon suñ la yëkkatiwaat foofu liggéey bi ngir di ci soññe jàpp naa ne dafay sofu ci liggéey am solo yooyu nga xam ne def nañ def ngeen ko te ñu man koo seere kon nag am nañ yaakaar ci ne yaakaar naa ne bu liggéey bi jógaatee ñu nos ko organiser ko teg ko ci norme yi nga xam ne moo méngoo ak euh, mbir yi ni mu doxee ngir ñàkk jot gi jàpp nañ ne fu fu taalibe mën a nekk ci France dana ciy participer te du du sonn kon loolu ñu ngi ciy am yaakaar bu baax a kon dañuy indi suñ cant yi tey sof ko ci cant yooyu ci liggéey bi nga xam ne indi ngeen ko tey ngir participer ko ci koor gi euh, ni nga ko waxee Muxaddamatul ma dafa yor ay liggéey yu bari yoo xam ne sëriñ bi denk na ko te jumaa ji it euh, dafa doon mbir moo xam ne taalibe yëpp ñoo ko bokk lépp loo xam ne lu ñu fi nekk rek dañu fay nekkal ñëpp te yéene nañ ñëpp it am ci tiyaaba ji te sëriñ bi moo waxoon ne ku ci feeñ dootoo réer ku ci réer dooto feeñ wax di hawaa ijil lazina daamu fi xidmati sëriñ bi wax na ko waaye dafa wax ci jumaa ji loo xam ne da ko beral wax fir liman banaw binaa rafi wax fir liman amarahum bi jami wala jami man aanahum ala binaa'i allazi bi fadlik bi fadlika axtala sëñ bi waxu ko ngir ñu doon tabax tabax bi rek ku jàpp ci entretien bi pile bu lakk wantiloo bu yàqu ñi koy setal sarpières yi machines yi koy setal yooyu yëpp ay liggéey la yoo xam ne bët bu set day laaj ay frais loolu xam ngeen ko yéen ñu nekk ci dëkki tubaab yi tabax bu toll nii nga xam ne lu lu bëri lañ ci frais xam nga ne entretien am lu diis la wala pit luy sàmm war ma ci liggéeyu dara armel yi wala organisation bàqiya ak yu bëri yoo xam ne sëriñ bi dañu koy liggéeyloo ay liggéey yu diis la yoo xam ne li ñuy mën a def rek mooy ànd ko ak taalibe yi ngir tamit li nekk ci suñ kanam sax di suñuy objectif ñu mën koo réaliser loolu kon ñu ngi ciy sant bu baax di leen ci gërëm di ñaan sëriñ bi mu fayal ñu boppam te bokk ñu teyal boppam te euh, yéwénal mbir yi ba lépp lu ñu bëgg a liggéeyal sëriñ bi rek ñu liggéey ko barakati xaadim rasul yan yàlla def tawféex ci mbooleem àddina bi mbooleem taalibe yi suñu borom musal leen te aar leen te ubbi bunti xéewal yi ñu mën a liggéeyal sëriñ bi ba luñ bëgg a def rek mën koo def kon daal kàddu yooyu daanaka kàddu yi cant la ñu ngi lay sant di la gërëm di sant mbooleem waa fédération France ci seen jëf yu jiitu ak jëfi tey yi fas yenee ànd ak yenn nag tem yàgg lool te seereel ko borom liggéey bi mu Cheikh Mamadou Mountakha bi ngay tudd léegi sax da danga da nga fàtte bu yàggul rek ci bi ñu waaj a màggal andi ngeen fii benn machine boo xam ne ci wàllu waaw ah, ah, waaw nga xam ne ñi nga xam ne dañuy daanu crise wala dara machine boobu dana leen mën a dimbale muy lu am solo buñ ko indee yób bu ngeen ko indee yóbbu nañ ko ci kanam sëñ sëñ Mountakha leeral ko mi ngi fi ba léegi dañ koy jëfandikoo ci événement yi loolu daal ay gis-gis la yoo xam ne yu am solo la yoo xam ne am ngeen ko kon yàlla nañu yàlla jàppale te jàppale leen barakatu xaadim rasul ñu ngi tënk kàddu yi foofu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu